sekk noo def. bisimilahi rahmaani rahiim. bisimilahi rahmaani rahiim. yaa ngi am jàmm wa rahmatulah taalaa wa yàlla. xam nga nag suba bi dangay nekk di wër ay affaire <laughs> dafa am benn affaire bu may wër ci téléphone bi j'arrive pas à retrouver mais Mongok. Mongok. nañ la ba baax. di la ziar bu baax nuyu sunu gan gi. <laughs> Euh, di may Maimouna Diagne di nuyu ñuy seetaan di wax ci aljuma ji. <laughs> yal na yàlla bette ñëpp xéwal bu leen di jik ci barke ndox mi di wàcc. allahumma amiin ya rabbi macha allah kon nag di ñu ñuy soxna Fall dalal ko moom it borom sport tàggat yaram noo def na moon naa la. oui alhamdulilah asma maa la raw lu bëree bëri j' espère ni sa semaine ba mu doree ak léegi lépp mujj. <laughs> Mhm. nuyu naa ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan <laughs> sur la Sen TV wala su Sen TV officiel Papa Sane maa ngi lay ziar di ziar sa gan gi di leen wax juma mubarak ñu door ko ak bismillahi rahmaani rahim suba teel nga mën ko terminer ak alhamdulilahi rabbil alamin macha allah xam naa ni moom gan gi daf ñu yóbbaale itam ci ci kàllaama waaye moom euh, ñu koy dalal ak jàmm ci suñu biir euh, madame Diagne ñoo ngi lay ziar bu baax a baax Aïdara Aïdara Diagne Aïdara Diagne Aïdara donc euh, bismillahi rahmaani rahim <laughs> alhamdulilahi rabil alamina ñu ngi leen di sant yéen ñu toog ci plateau bi yëpp <laughs> merci surtout à mon frère Pa Assane euh, ñu ngi sant yàlla ci toog biñ fi toog ñu ngi wax ñépp jumaa mu mubarak ñu ngi leen di wax aussi euh, subateel bi ñu ngi fi toog pour waxtaanee tey ji lu ñu ñor donc euh, ñu ngi leen di sant di leen gërëm euh, di leen wax ba ci kanam incha allah. <laughs> allah dafa nar a gunge Pape Assane ci la chronique du vendredi kon nag laata ñu koy jëli Pape indi nañ fi rétro ki nga xamante ni moom moo di Ablaye mbay mu nekkoon artiste de renom ci lyrics te nag yàlla def kéemaan ci moom ndaxte tey jii bu ñu nee gumba buy mën a nettali mbirum àdduna mhm. ba mën la ci yedd nga mën cee gis sa bopp euh, kookoy di Ablaye Mbaye euh, kon nag loo ñu ci mën a wax yow mi am euh, xam-xam tuuti ci côté boobu Ablaye yàlla na ko yàlla xare aljana yu gën a kawe allahumma amiin yaa rabbi boole koog Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam te mooy gën di mindeef li ñu si mën a wax du du bare mhm. dañu koy tënk rek mhm. Abdoulaye Mbaye nit la woon bu baax mhm. asma nit bu bu yaru bu bu am teddangal bu bu bu bu am talent boo xamante ni dafa am li ñuy wax mayu yàlla mhm. euh, euh, koo xamante ni euh, daanaka bu fekkee ni si jamono mhm. sa téléphone mhm. bu dee sa téléphone xasma yàlla dafa am jafe-jafe wala mu am lenn lu nga xamante ni am na lu la ci sonal loo xamante ni daf lay déranger ci sa téléphone laa la wax sa téléphone dafa yàqu ci jamono boo ko joxee Ablaye <laughs> waaw day def nii ndeysaan eh, eh, eh, yàlla. loolu mayu yàlla. Mhm. te boo xefee mu lijjanti la la sa ne. Mhm. Mm-hmm. yàllaay maye loolu. Mhm. ci lu bari mën nañ ci wax maa ngi fàttaliku nag li ma ci gën a marqué. mooy bi muy dëddu. ci guddi gi. maanaam bi ñu nee suba la mbir mi am. ci veille bi ñii seetaan am na si ñenn ñoo xamante ni nañ ko fàttaliku si ñu ma ko bokkaloon ñu ngi toggoon bokk jotaay. ba quatre heures du matin. di waxtaan wax ji nag mu mel ni kuy dénku. ndeysaan mel ni kuy wax daal wax ji bari lool mu mun ko fàtte mukk mu wax euh, ñu ngi toog ak Habib Faye mu ne ko Habib Habib xaw ma fan la may fekk mais yow ak di ngeen dellu di ngeen juboo loolu du ko fàtte guddi guddi googu le lendemain la décédé. waxtaan bu yaatu ma pend ñëpp nga foon. mu wax te mel ni kuy dénkaane boppam. Mm. Euh, bi mu defee loolu bi muy dem mu ngi ñuy gestu naan ñu gars yi àddame yàlla ñëw ci ëllëg sa euh, mën nañ ci wax lu bare yàlla na yàlla boole ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gën a kawe et di féliciter euh, sunu papa bi Iran Ndaw ci initiative bi mu jël lu assez louable mm-hmm. euh, Ablaye Mbaye am na kër góorgóorlu na ba jox ko yaayam mm-hmm. ñu xëy am jafe-jafe yaayam wax lu si àq Iran jël initiative def ci li nga xamante ni mooy téléthon on va dire ça ainsi mm-hmm. woote ndimbal pour ñu utal Ablaye kër delloo yaayam ci ni mu ne woon lu rafet la loo xam ne mun nañ ci insister et jàppale ko ci man daf ma dafa ma daf ma apprécier woon à travers ma ak Real Madrid gi ñu bokk man <laughs> il le temps au téléphone pour discuter avec moi de match surtout du club Real Madrid macha allah na ko yàlla yërëm àtte ko ci yërmandeem macha allah euh, kon nag kookule dañuy fàttali ne rek encore une fois ñi nga xamante ni nag yàlla baaxee na leen xol mu rafet nag yaakaar naa ni Sénégal yëpp seen xol a rafet euh, kon nag téléthon bi suba la à partir de 14h Papa Sane Seck. mën nañu woote. tout comme mun nañ ñëw présentement euh, képp kuy bonne fois rek mën nga ñëw daal di def li nga xamante ni moom moo di waslu àq mhm. ndaxte kenn ku ci nekk ci sénégalais mës na la bégal te gis ngeen nekkatu fi waaye même sa musique reste à tey jii nii loolu li mu wax ci yaay kenn mënu ko dindi téere la te itam sonorité musicale yi li mu ci teg gune yi bu buñ ko gëstuwaatee ah, femme ak ay gaam <laughs> buñ ko gëstuwaatee rek mën na euh, amaat li nga xamante ni moom moo di inspiration waaye tamit euh, ki nga xamante ni moom moo di Soxna Fall moom itam dafa am gan boo xamante ni dina ko dalal euh, tey ma bàyyi la rek nga nga dalal ko. <laughs> voilà mon cher c'est un ancien international de basketball nekk acteur tam nekk président tam ci benn club ci émission soxna maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant euh, di nuyu téléspectateur u Sen TV yëpp di am mbégte ak kontante vraiment partagé ak yéen plateau bi émission bi nga xam ne vraiment ñëpp a ngi koy seetaan te mu neex leen bu baax a baax a baax. macha allah ci ñëw ci kanam ñoom dañuy xëccoo ak di xeex rek. <laughs> ñoom basket bi temps yi dafa yëngu de. waaw doy na waar temps yi moom euh, ku topp actualité bi. je pense que ni loolu noonu la nit ñi di sentir waaye je pense que ni basket moom nga c'est une famille. waaw donc xëy na des fois ay mu amay gis-gis yu xaw a wute. Mhm. mais je pense pas que ni dinañ war a mën a yegg ba ci xeex boobu noonu ñuy wax. d'accord waaw incha man dama ñëw après après maanaam de 97 bi parce que c'est à partir de 99 ci laa intégré équipe hmm. nationale bi waaw. très bien très bien alors ce sera très croustillant justement ce vendredi <laughs> ci naka noonu nag laay nuyu ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy teewlu ci euh, notre page Sen TV l'officiel ah soxna Fall di leen fàttali assez souvent waaye nag ñu utal leen box soxna. di wax li nga xamante ni moom mooy am euh, solo yi ñu fiy bind ak seen ay contributions ñoom itam ñu sawar si lool waaye gis nga mention spéciale ak ki nga xamante ni moom moo di Khadim euh, fële ci. Euh, Khady Mohamed Taïf Cissé moom Euh, sa yu boo tàmbalee rek da gis ni bokk na ci les fidèles connecté mm-hmm. il est très fidèle donc maa ngi koy ziar en travers moom may nuyaale waa Touba yëpp yéen ñi ñuy seetaan ci télé bi wala itam euh, ci suñu euh, page Sen TV l'officiel waaye Marie Sarr yaay booy maa ngi lay ziar yow itam di nuy Fatou Tunkara moom itam une fidèle depuis le début mi ngi ànd ñun ñoo ngi lay ziar bu baax a baax ma Mami Mia Sidibé ki nga xamante ni moom moo di Aminata Doucouré soxna Fall ma nuyaat la wala ndax bokk ci internet bi <laughs> mën nga ma nuyuwaat de yàqul dara. Mhm. soxna Fall mi nga xamante ni moom moo fi res euh, tàggat yaram moom it mi ngi bokk ci suñu <laughs> ay internet maa ngi koy ziar soxna Demba itam euh, Modou Bara Sarr Pape fexeel ba bul connecté ndax boo connecté wooyu man dama lay nuyu ba sa yére wolof bi nga xamante ni. Hmm. mi ngi sàjji macha allah kon nag ñu di leen ñaanal juma mubarak euh, bu ko defee rek bu leen fàtte di partager Aïcha ñu def li nga xamante ni moom moo di suñu ay éphéméride Papa Sane dañ koy jëli rek daal di fàttaliwaat. Hmm. Mm-hmm. ma bàyyi la nga tàmbali tey. non vas-y bisimilah. ak ah, dégg alors euh, dañuy nekk aujourd'hui nous sommes le 14 août 2020 dañuy dellu le 14 août 2014 d'accord mm -hmm. euh, ce fut euh, la mort de l'étudiant Bassirou Faye au cours d'affrontements entre étudiants de l'université Cheikh Anta Diop et euh, de Dakar qui réclamaient le paiement de leur bourse et euh, les forces de l'ordre tey euh, tamit dossier classé sans suite c'est comme comme Balla Gaye comme Fallou seen comme tant d'autres comme Malick Ba à Sangalkam euh, ñu ngi koy ñaanal yàlla di masawu jabootam euh, di ci am regret parce que toujours même ci ay détails la moo xam réclamation de de bourse moo xam euh, condition yi ñu nekkee fële ca université ba mais toujours avec les les les régimes politiques yi nga xamante ni souvent dañuy ciy juum lu bëree bëree bëree bëri dañuy juum dañuy dañuy manquer de tact par rapport à la gestion de cette situation universitaire nañ ñaan yàlla loolu gëj fa amiin waay nañ ñaan mu gëj fa mu gëj fa et puis nag après dossier classé sans suite bon ci nit ku ñàkk ba karam am na ñu ci jotoon tee ñu ci jot a laaj eh, ay ay mbir pour xam mais toujours est souvent li ci nit ñi di di regretter mooy parfois dañuy am impression que ñañu koy jiñ sax du doon ñoom euh, te kenn du xam kan la donc euh, malheureusement c'est ainsi te bari na ci Sénégal ah on va se rappeler Blondin Diop. Mm. ak ñeneen ak ñeneen donc ci ci te toujours euh, avec les acteurs politiques xam naa ne moom ñi yëngu ci politique moom. Mm. war nañu bàyyi xel ci borom bi bu baax bis dina ñëw. tout à fait et puis tey jii da ngay gis ni soxna Fall euh, gune yooyu la dañu nekkoon ci euh, tànkum ut seen diggu ndënd comme ni ko wolof Njaay ji waxee kon nag bu fekkee nii ci lu mel noonu euh, bakkan rob na ci far pour man dañu leen waroon a accompagner war leen accompagner seen famille surtout mhm. à supporter li nga xamante ni moom mooy la perte mais aussi yaakaar la ndax ku jur sa doom mu toog ci diggu ndëndëm nag yaa ngi yaakaar mu uti indil la euh, ku ci mel ni Fallou Sène gis nañ ni soutien de famille la woon te bàyyi na fi njaboot mais il n'y a jamais eu d'aide ou d'accompagnement de mesures d'accompagnement par de l'État loo si xam. pour la plupart euh, ça se passe ainsi euh, problème de suivi la ñu am au Sénégal à tous les niveaux. moo tax secteur boo laal rek day am euh, loolu danga ko ci ràññeeku bu baax a baax parce que ni nga ko waxee ay gone lañu tolloon ci seen diggu ndënd toll ci seen jàng toll ci euh, jamono joo xam ne wuti xam wala ngir mën a xool bunt bu ñuy wutee jee liggéey dimbali seen ay njaboot yu mel nii moo ko indi mais je pense que ni fi ñuy toll à chaque fois euh, ñëwaat bu bees ñuy répété waat les mêmes choses même actes di amaat war na fee mën a jeex ci jamono joo xam ne ay bourse moom étudiants yi war nañu di planifier mm-hmm. ñuy xam kañ lañu jot seen ne bourse à temps ba mu bañ a indi peut-être benn jafe-jafe ba muy indi heure yooyu ba parfois ñuy baare ay tali wala di sànnante ay gaañante ba bakkan di ci war nañ ko dépasser. Mhm. tout à fait ayca ñu daal di dem rek 1979 euh, le 14 août euh, toujours Papa Sane le retour à Dakar au terme de sa mission du premier contingent euh, de 600 soldats sénégalais participant depuis juin 1978 à la force d'intervention africaine au Sarba. fële ca Zaïre Zaïre euh, Kinshasa moo la moo la république république démocratique du Congo. Congo Congo oui. Euh, dëkku Mobutu Sese Seko. borom. <laughs> ak amoon doole foofu. Ah. Hmm, Afrique centrale Afrique centrale dafa yàgg nag bëri ay jafe-jafe euh, xam nga mu yàgg bëri bëri ay jafe-jafe. bëri ci benn mot. waaw bëri ay ressources rek. kese bëri richesse loolu rek mooy jafe-jafe Afrique. ak kan ak ñan ñi làkk tubaab France Belgique toujours. Euh, région des Grands Lacs <laughs> toujours ñoom la rek ci ca Léopold II ba tey ñoom a rek foofu nag Mobutu amoon na fa benn benn force de présence bi nga xamante ni euh, c'était presque un roi euh, Zaïre ci jamono Zaïre nekkoon tamit dëkk bu mag bu amoon xaalis boo xamante ni un temps soit peu li muy doon doon koo xamante ni dañ ko jàppe woon ku dominer dëkk bi dominer ressources et tout y avait un minimum en tout cas de de de mooy jamono bi nga xamante ni Zaïre boog république démocratique Congo boobu dañu amoon euh, li ñuy wax un développement culturel incroyable mm-hmm. euh, ñoom lañu daan wax dañu mën a solu mm-hmm. dañu dañu dañu seen musique dafa fës dafa am doole ci àdduna bi <laughs> euh, ñi doon doon xale ñu ngi fàttaliku suñu papa yi doon déglu ñoom Rosoro mm-hmm. ak ñeneen ñu mel ni ñoom maa ngi fàttaliku si jamono loolu yàggul le fameux Pépé Kalé ndeysaan bi yàlla na yàlla yërëm ak ñeneen donc loolu moo doon dëkk boobu Sénégal nag moom yàgg nay am jaloore di am ay nitam ci ressources humaines ak ressources euh, ci domaine de force sécuritaire di dem di contribuer yàgg na du tey justement alors li nga xamante ni nag moom moom la ñenn ñi di wax mooy que euh, il préfère africain boo xamante ni ci réew moom mooy euh, on parle peut-être d'une certaine dictature et d'un certain mhm. euh, pouvoir d'un certain royaume comme ni nga ko waxee ñoom africain bi na bénéficier ci seen ay ressources que tubaab bi ñoo rey africain bi fexe ba teg fii yeneen africain yoo xamante ni dañuy jël di ko jottali waaw c'est-à-dire que tey boo boo jëlee koo xamante ni dañ jàppale ne kooku moo gën ci réew ma. Hmm. bu ñu nee diw vraiment maa ngi déglu dina am benn vidéo boo xam ne MD dina la ko may si kanam. Hmm. bu ñuy ubbi chronique bi. waaw dina la ko may nga comprendre nan la ñoom ñooñu di xalaate si ñun ban idée lañ ci am. tubaab bi da ngay toog di dégg ku mel ni Nicolas Sarkozy mu ne la le président Sall Macky qui fait un excellent boulot au Sénégal léegi ñun Sénégal ñoo war a wax loolu. moom du moom moo ko war a wax. wax la ñoom seen philosophie ak comment ils nous considèrent. c'est un <laughs> manque de respect manque de total boo xam ni moom la ñuy dundee ak ñun. mais dans l'ensemble. Mm-hmm. Mobutu am na amoon na plein de failles. Mm-hmm. beaucoup de failles. énormément de failles. boo xoolee sax mu jëntal bi ni mu demee yàlla nattu ko mu faatoo fële ca Maroc. Euh, demin bu yàlla ñu yàlla musal ci ci ñaaw ñaaw mujj bu metti boo xamante ni souffrance la demee donc euh, te loolu aussi ca la ngay jëmbat nit la mm-hmm. naan la nga joxe rek ngay am euh, noonu la mujjee dundee alors ay Aidara tey jii nii dañuy gis ne nii ñii dem ci nguur rek yàlla daf leen di nattoo ab ñu fàtte yàlla si mbir mi ndax diine bu nee rek bu ko yàlla nangulee ci yàlla la jëm mhm. yonent yi ñooy wutee rek mhm. waaye nit ñi dañuy fàtte yàlla ba nga xam ne ni après dañuy luubal rek lor askan <laughs> yàlla na nu yàlla musal ci lor muy lor askan wala lor lépp lu suñu borom bi sàkk rek euh, nguur dafa am lu ko tax a toog Mm-hmm. nguur li ko tax a toog mooy mu nekk baatu askan mm-hmm. nguurum li ko tax a toog mooy mu représenter askan mm-hmm. nguur li ko tax a toog mooy mu defaral askan donc su defee leneen rek wàcc na lu ko war donc est-ce que ñi ngi def li leen war wala defuñu ko donc loolu aussi c'est mën nañ ko xool ci plusieurs niveaux ak ki koy wax ak ki koy xool xam nga nit ku nekk fa nga toogee rek fa nga mën a waxee euh, ñun ñooy population bi am na ñu ñu jiite ñu ñu jiite am na lu ñu seq ak ñoom ñu ngi koy doxal wala doxaluñ ko ah loolu tamit euh, euh, discussion bu bu bu xaw a bu xaw a mm-hmm. ample la mm-hmm. euh, ndax dafa bari lu ñuy jiite ku jiite réew jiite infrastructure jiite gouvernement daanaka lépp nekk sa bopp lépp nekk sa mbagg du lu ndaw mm-hmm. donc du ñoom rek ñoom ñoo ñu war a jiite ñun tamit dañ leen war a jàppale ngir ñu jiite ñu donc ragal yàlla ci lépp nag muy jullit bi ñun la war muy cretien bi ñoom la war sunu borom bi ku mu sàkk rek war nga koo ragal war nga koo ragal ci ay jaamam ndax moom moo bind ay jaamam kon nag ku nekk li nga moom soo sañoon kenn du la ci defalu la naqari man mii sama njaboot sama doom jee su ma sañoon kenn du ma ci defal lu ma mm-hmm. naqari yéen tamit ak keneen ak keneen donc yàlla dafa fonk li mu bind donc dafa fonk njabootam gépp mm-hmm. donc nit ñi tamit dañu leen war a fonk ak fu nu mën a nekk tout à fait alors tey Pape Assane mosoon na fi proposé li ni mel nee na ki nga xamante ni buñ koy dénk réew bu dee jullit lañ dañ ko jox kaamin mu waat xëy na daf koy fàttali li ni moom moo di mhm. wareefam digganteem ak boromam mhm. ba tax ne dina wormal digganteem ak euh, ñi moromam yi nga xamante ni moom lay jiite est-ce que aussi bu dee catholique tamit bible bu tamit Torah waaye juif nag <laughs> ràññoo ko ci mim réew mhm. kon nag dañuy <laughs> li nga xamante ni moom moo di l'islam euh, tey jii nii proposition boobu yow noo ko gis parce que dañu leen gis ni ñoom duñu waat dañuy génn génn rek def discours à la nation. Euh, xam nga am na yenn qualité yoo xam ne. Mhm. nit ki da koy am rek wala mu ñàkk ko. muy njiit wala mu ñàkk njiit. Mhm. nekk njiit euh, waat taxul nit wax dëgg taxul nit ñàkk wax dëgg nit ki mën na yor kaamil waat te li muy wax. daara nekkul ci moom nit ki mën na yor bible te li muy wax tamit gëmu ko donc euh, du je pense pas que c'est ça le problème la problème mooy jukko mhm. nit ki moo war a am jukko boo xam ni mhm. fu mu koo mënti woo ak fu mu mënti toll tamit na wax li nekk ci moom na wax li mu gëm mhm. ndax nit su waxul lu mu gëm rek wax leneen te li wala fi mm. naan lu yàgg dëgg la soo yàggee euh, jiite ay nit wala nga yàgg nekk ak ay nit soo waxee dëgg dinañ xam soo waxee safaan dinañ xam donc le temps dafa jara bàyyi xel ci lu ñuy def pense que ni waat euh, man moom euh, rafetlu wu ko loolu. Mhm. ndax euh, gis nañ fi ni nit ñaa ngi fi waat. Mhm. tey su subaa ñu def leneen. donc conviction ak jub ak def li nga war a def rek moo am solo. am loo jomb waa koy am looy am looy jomb. xam ni tamit foo mënti nekk muy digg muy sa biir néeg ci biti am na kenn koo xam ne am na un juge boo xam ne bëtam jógul ci yow. tout à fait donc loolu ñu koy bàyyi xel. juge boobu nag moom moo di boroom euh, bakkan yi yëpp ndax moo sàkk àddina euh, sàkk alaaxira sàkk mhm. lépp loo xamante ni moom la ñuy gis di dund euh, sàkk ñu ñun ñii tamit sàkk pexe yi nga xamante ni moom la ñuy jox di natt nag ba xam ndax ñun ñii dinañ bokk ci jaam yi màndu mbaa dañuy bokk ci jaam yi nga xamante ni nag safara mooy di seen kër yal na ci yàlla musal. 14 août 1883 les chefs du Fouta central s'engagent à laisser construire une ligne télégraphique. historique entre Saldé et Bakel, Papa Sensei. Qu'est-ce que ça te rappelle euh, Quand on parle de télégraphie, on passe tout de suite à euh, ce qu'on appelle le canal de transmission de message C'est juste pour la bonne voie dans le sens de la communication générale par rapport à leurs activités propres. Xam nga mooy kan moom moom. <laughs> Eh, soxna Paa San du bàyyi ñooñu. oui ma yow nga defee ni la dem ba diggante. <laughs> bàyyi leen di yomb tam de. ndax lépp seen loxo nga ak na mm. la. du du hasard du lu gratuit foofu c'est la région nord du pays. Euh, boo yéegee tuuti yaa ngi diggante Saint-Louis jëm Mauritanie. waaw fa nga xamante ni fa la gaz bu yàgg boobu yàgg nekk. Mm. ak leneen ak la su topp. Mm-hmm. maanaam il faut toujours des liens. loo xamante ni moo ñuy permettre ñu ñu link te yombal suñu liggéey colonisation bi am doole ñu xam fu ñuy jaar. Mm-hmm. dégg wax bi. Mm-hmm. fa la ñu mën a yem. <laughs> tubaab bi na leen bàyyi. ñu bàyyi nasaraan si. leen a bàyyi ni ma wax sànq rek lépp seen loxoo nga ca. dañoo dar nit. dar man dar man <laughs> naa ko dëgg la woon. alors Papa Seck dafa mel ni internet yi rafetlu nañ tamit sa yëre wolof bi nee nañu si très beau. alors ki ko wax nag mu di euh, Bineta Samba nee na macha allah Papa San très bien habillé wolof jàpp na la asma namm naa la sa bleu baax na tuddee naa la ko <laughs> kontaan nga. ayca kii di El Hadj Malick moom ak Alioune Badara Bey ñoo ngi xëcc xëccoo rek de ba tey ku Pa Assane may maye indi leen ko warugar bi moom mu tànn ku ko ci neex bu ko defee. mu maye El Hadj Malick moom dama ko xàmmee à travers réseaux sociaux yi gëmul dara dafa weex bët. yii dafa moom ñëpp lay nopp. dem na rendez-vous nopp Myriam. moom a jaaxal ñëw fi nopp ma man. dans les hôtels tamit sa comme ça hein noonu la mel <laughs> kon yow sa candidature sax na mooy validé te nee nañu boo bëggee euh, booy doxaan rakk da ngay fexe ba jege mag <laughs> booy labat mag nga fexe ba jege rakk bu ko defee affaire yomb la <laughs> sama ndaw si nee na déedéet euh, kon nag sa cas mi ngi bëgg a critique Rahma Rasoul Wagué euh, maa ngi lay ziar bu baax a baax Alain Diémé merci d'être parmi nous aujourd'hui xanaa tey liggéeyoo ndax moom da daan ñëw rek di partager des Malick Sall yow tamit bokk ci suñu ay premier internaute ñoo ngi lay ziar bu baax a baax kii di Maguette Diouf itam Mohamed Conté ah, ku bees la nag man maa ngi koy door a gis ah, mu ñuy seetaan kon nag xëy na yeneen bés yi daf maa rëcc waaye bu dee tey mooy sa bës bu njëkk ñoo ngi lay dalal ak jàmm ah, ci suñu biir moo di Assane Cissé Cissé Barhama maa ngi lay ziar bu baax a baax kon nag wax dëgg yàlla seetaan si am na solo sal Salzo Fall Sédar César ñoo ngi lay ziar Sanou Sangaré Sidia Sané ci kanam dinaa ñëwaat rek bamtu kon nag bind leen te partagé leen surtout alors ñu dalal Pape Assane Seck ci li nga xamante ni moom mooy suñu chronique Euh, du vendredi et c'est tout de suite. Aïcha Papa Sène Seck ñu fas yéene waxtaane ñu fas yéene waxtaane loo xamante ni dafa dem